waaw xam nga lima wax 2STV yi dafa leer nañ. Omaro nak mo toll fo xam ci communication mm-hmm. lu mu wax coow la mm-hmm. lu mu wax bruit la Lumu wax mànd gu dagg la réew mu yëngu la Waye setanat len vidéo yi mm. allusion la def li tubaab tuddé allusion mm. allusion nak moy wax ju dëgërul waaw non da dañuy waxtan, da dañuy waxtan. allusion moy wax ju dëgërul wax joo xam ni ki koy wax amu ci confirmation waaye wax na lim jot ak lim yaakaar hmm. chaque jour mën na leen man dama am ñaari position ci wàll yi hmm. mooy damay fan sama noppi doog a nekk porte parole léeg damay taxaw taxawaayu porte parole wax ci turu président loolu lu ma ci wax waalee ko wax hmm. mais léeg damay simbi sama mbubbu président euh, porte parole nekk fans nekk amateur ni ñëpp di wax sama xalaat di juger di àtte di wax li ma neex ak li ma naqari dama toog 2STV ma ne projet yi ma jot a gis li ma jot a diglu sama xel dalul lii may xeeñ neexul li ma jàpp waali day bàyyi waay li ma jàpp waaw li ma jàpp mën naa nekk dëgg mën naa bi nekk dëgg ndax man nag du ma waali waali mooy waali seul waali kone waali moo ko wax de nee na waali rek moo xam waali te nag nit la koo xam ne mën na laa may lépp ci boppam waaye da ci am loo xam ne da koy teel boppam du nit ku joxe lépp kooku du nit ku joxe lépp du nit koo xam ne day jël nit jox ko léppam lu la jox ba nga gonjox ba doyal jàppal na téye na téeméeram am na loo xam ne décision personnelle am la yoonu staff nekku ci yoonu Omaro nekku ci yoonu ma Massamba nekku ci yoonu Mademba nekku ci moo ko jëlal boppam bu ko jëlalee boppam ne tooy na ñu ne ko tooy na bu dee woon ñu ne ko woon na mais dama def allusion ma ne sama xel li mu ma jox jàpp naa day baay ba na raxu boo xoolee si vidéo bi yéen producteurs yu mag yi koo convoqué leen ko ngeen toog ak moom ngeen waxtaan ngeen dalal ko ngeen defal ko mu dellu siwaat kon xam nga ne kii wax loolu ba di yebal ay nit pour ñu wala waxtaan ak yow waxul lu confirmé dafa wax li mu njort cooli na kur man gi dagg ku ku ne jug di wax waaye sant yàlla ndax wax dëgg yàlla euh, showbiz la te ay coow a koy dundal ñu ragaluñu loolu te amuñu ci problème te chaque jour ma ne presse bi marché sol laa juddoo ay wa yebooy laa jëkk dégg ay wa laaj ay wa sompaat man coow reyu ma ma santaat yàlla nag ci bi ma yeewoo gis affice bi mm-hmm. ndax wax naa ko barki démb man waa mu bàyyi way mooy dem naa Ghana wala Libye walla Congo wala Inde ndax man fii def tuma fi dara ndax wax dëgg yàlla li ma liggéey ci showbiz gaa yi dama leen jox exclusivité tey nit ñu bari dañuy gis dara mu sotti mu ñor mais duñu xam fu ñu ko toggee man taalibi Serigne Touba laa Cheikh Béthio laa yaakaar àddina ak àllaaxira lu ma am ci sama àddina moom gënal mais olof dafa am baat ba solo bu mu wax dafa e ne deret sonal borom man sama mam Ibra kasse mo ndik tabax bu àdduna yi ci Sénégal muy Miami papa Aliou kasse Aliou kasse suma nijaay la suma ma doomi baay la suma ma la ndax moo ak suma baay sen baye bok nday ak baay Miami kat bu way ci paa dafa nga dooree sam papa Ismaïla ñi dàkkoon na tëgg baal ci ndakaaru ci la bokk boobu boîte yii bariwul ba ñu koy tëggee ci boîte da ngay xool terrasse bu yaatu rek nga baas aménagé def li ngay def dagg say entrée ci buntu bi nit ngi ñëw baal si bi ma juddoo la sama baay bàyyi tëgg baal bi ma juddoo man la sama papa tuub bàyyi na bàyyi naa tëgg soirée mais moo dàqoon a tëgg soirée ci ndakaaru xam nga loolu génne ko ci showbiz man xaalis showbiz la ma ngéntee te mosuma ko wax man sama papa daa tëgg soirée ba soirée bi jeex muy def décompte di compte xaalisam ñu woo ko ne ko soxna si am na doom xaalisu showbiz lañ ma ngéntee taalibe laa nag moo ne sama xol moo ne sama dënn mais dama bëgg nit ñi xam ne man su ma waxee ci showbiz dama cee war a wax su ma waxul ci showbiz dama cee war a wax parce que deret ma sonal yàqul nag sama taalibe waaye deret ma sonal moo tax nag ma ne waali tey cëram ci biis ak li ma liggéey ñu dajee ma ne ca kaw ñaanuma yàlla wàccaat ci suuf ndax nag mënuma percer góorgóorlu ba dégg monsieur le ministre après di doo dof lu bay wàccaat di dégg chef de quartier wala chef de canton wala chef de village du ma ko def kon man lu ma mën a am waali way moo ma ko gënal lu ma mën a am waali am ndam moo ma ko gënal kon nag rendez-vous bi c'est pris le 27 avril la incha allahu rabbi le retour du président Waly Ballago Seck sur scène fii ci CICES nit ñi nag ñu ngi bëgg a rey doomi aadama yi ci bii bii bii bii mais teel na dañuy communiquer rek ànd ak yéen dugg ci weeru koor gi koor ko jàmm ak salaam bu koor gi jeexee nag incha allah bii dina disponible table yi dina disponible waaye li ma la man a assuré mooy Sénégal danañ gis beneen Wally bu yees pekk bu bokkut ak ba woon sur tous les plans nit ñi moom danañ taxaw wala jàkkaarloo Wally mu way ñu taf seen gémmin fat seen i nopp ndax jom mi kon nag incha allahu rabbi rendez-vous bi le 27 avril la mi ngi ci sunu kanam yàlla na ci yegg ak jàmm incha allah.